jërë ngeen jëf mbokk yi tey sama tàmbali kàddu duma wax ne ñi ngi am mbégte ndax nag naqar la ñuy dund jamono yi ci réewum sénégal waxuma sax li fi rot ci ay bakkan waaye rek lu toll ci 1020 nit ñi ngi leen tëj ci biir kaso yi ñu nekk ci jafe-jafe yu tar ñi ci ëpp nag nekk ci grève de la faim mais nag li gën a doytu waar moo di jàpp gi ni jàpp ki nga xam ne di Ousmane Sonko di président parti bi nga xam ne moo di Pastef Macky Sall teg ko loxo ci biir teg loxo boobu nag ñépp xam ne ne jaaduwul lu méngoowul ak dëgg la lu teguwul ci yoon ñu dugal ko ci biir kaso bi dam ko tegee loxo mu tàmbali li nga xam ne moo di grève de la faim ba mënatul nekk ci biir kaso bi ñu yóbbu ko fi nga xam ne moo di hôpital principal hôpital principal boobu ñu ko fa yobbu tay ji mi ngi ci ñaar fukki fan ak lu tek sax ci grève de la faim ba mu jaaxal adina bi yépp kenn xamul fu muy mujjee xolu yërmande amu ci ba tax jamono yi ñu ne mi ngi réanimation te nag bu ñu li nga xam ne di réanimation moy guddi gu beut setagul tay ma toga ay soxnaam di soxna khadi Kébé ak soxna jamanka nam senegal minu ñu len ñuy genn di wax rew réew fay am fu muy yen ñu dundu yenn jafe-jafe yi wara yëkëti kaddu ndax adina xam nañ ne bokku na ci soxna yoo xam ne ba seen borom kër duggee ci yëngu-yëngu politique ba tey jii defe naa ne lu ñu dund kenn musu koo dund ci réewum sénégal ci métit ci xoñoñal ci toroxal ñu ànd ak seen ngor nag di ko muñ di topp seen njaboot tey ñu fas yéene waxtaan ak sénégal yépp soxna xadi kebe ma jox la kàddu gi aousubillahi rajim bismillahi rahmaani rahim wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu uh, ginnaaw bi ñu nuyoo sénégalais yi nuyu waa diaspora bi ñi ngi yëkkat suñu ak njaal aussi di ko jagleel bépp doomu sénégalais bi nga xamante ni depuis 2021 ak léegi ñàkk nga sa bakkan ci li nga xamante ne mooy taxawaayu réew bi rien que pour dëkk bi avancé injustice jeex fi képp ku ci faatu looloo la rey di yëkkatiwaat suñu kàddu aussi di baal ñi nga xamante ni ak di massaw ñi nga xamante ne ay blessé lañ ci am na ñoo xamante ni dañoo inapte ci lu bare bare bari bari ñi ñàkk ci seen liggéey lu bari xew ci di massaw encore une fois les nombre de détenus yi nga xamante ne ñu ngi ci prison bi sori seen njaboot sori lépp nag leen waralu ko lu dul bëgg aussi Sénégal avancement bi fi am parce que injustice bi dafa ëpp. Euh, defe naa nag euh, bu ñu weesoo ci loolu acharnement bi nga xamante ni ñun ñu ngi koy dund ñun soxna Ousmane Sonko ñun ay njabootu Ousmane Sonko. ñii di ay doomam ak suñu borom kër gi di Ousmane Sonko defe naa ni histoire du Sénégal bi mu taxaw bi ba tey. mosuma gis benn homme politique boo xamante ni mi ngi koy dund wala famille mi ngi koy dund mais nag alhamdulilah ñu ngi jël yëpp teg ko sa loxo suñu borom subhaana wa taala parce que jullit moom chaque jour lu la dal rek danga naan alhamdulilah ala kulli xaal gëm nañu suñu borom moo ñu ko teg mais nag ndimbal la ca fekk loxol borom. tey nag bu ñu gisee jigéenu homme politique boo xamante ne sa jëkkër homme politique nga jël micro tey di wax ndax génne li la naqari li naan xol du oom bañ koy bës. coono désespoir ak euh, fitna gi nga xamante ni teg nañu ko teg ko suñu njaboot moo tax ñu génn diw ak population sénégalaise xam ne nag ñi ngi muñ nag ñi ngi muñ de metti na trop nag mais ñi ngi muñ mais incha allah suñu borom bés bu ko jeexalee dina dina jeex mais nag il faut qu'on prend les sénégalais en témoin ñu xam li ñuy dund. dañuy gore nag ba dee dañuy gore ba dee kenn duñu dégg ci dara dinañ gore ba dee. mais il y a des choses qui ont aussi c'est c'est extraordinaire quoi c'est extraordinaire mais nak ñi ngi jël lepp teg ko soxla ko suñu borom un jour viendra lepp dina jeex bon dañoo yor ay dom ñuy ay xalé toll ci wara tok di fokk seeni morom di dem ak di dekk lool yëpp ñu privé len ko defe naa ku ko privé lool rek privé nga ko vie hmm. te xalé amul luddul loolu mais ñu toog yar suñuy doom muñ loo leen mais trop c'est trop aussi ñu jël rek teg lépp si loxo yàlla te xam ne xel ni incha allah population sénégalaise xam nañ li ñuy dund kon nañ autorités yi aussi nañ xam ne xel ni ñoom it dañoo yar njaboot ku teg njabootu jàmbur loo xamante ni métti na toogal nga toog nga réfléchir nga ni lii ndax suñ ma ko tegoon sama njaboot dinaa ko mën a supporter parce que defe naa kenn ku nekk da ngay jël sa bopp di ko miiré ci sa moroom bu ko defee boo koy teg rek dëgg gëm naa doo ko teg loo xamante ni moom du ko mën a bañ a àttan euh, du ma guddal lu bëri damay bàyyi sama rakk aana mu développé ci yu gën a bëree bëri bëri mais nag pour prendre en témoin la population sénégalaise xam ne xel ni ñun am nañ lu ñu metti am nañ lu ñu naqar mais dañoo dal nag toog di ko muñ loo suñu borom. Mm-hmm. aana xaar ma jox la parole jërëjëf euh, soxna Khady kebe kaddu yu rafet na waaye nag lu wolof fi di wax. xol du om bañ koy bës mu méttee faw mu génn soxna ana laaj bi ma lay njëkk laaj moo di dem ngeen nemmeeku seen borom kër ci yan anam ngeen ko fekk asalaamaaleykum bismillahi rahmaani rahim di jiital nuyoo bi ci kilifa diine yépp di nuyu sénégalais yi les yi d'ici et d'ailleurs ñu ngi leen di nuyu di leen jëfal ci lépp di nuyu les sympathisants di nuyu les militants ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp Sénégal yëpp ñu leen di nuyu. ñu ngi jaale tamit Sénégal yëpp li mënta xew yëpp ñu ngi ak euh, li décès ak yooyu noonu yëpp ñu ngi leen di jaalee bu baax a baax. ñi nga xam ne nekk tey jàpp nañ leen si ñu ngi leen di ñaanal euh, sunu borom delloo leen seen kër yi maa koy ñaan ci. barké safar bi nga xamné ne nekk tey la commencé donc euh ñu joggé ci li yalla li ci top yalla na nekk mbég yàlla na nekk mbég moom rek lay ñaan ci barké borom Touba donc euh, pap tay dem nañ séti Ousmane li xadi wax rek lay yegali dem nañ séti Ousmane donc euh, ni ñu ko gisee neexul honnêtement très honnêtement neexul les gens nous connaissent très forte muy man muy mom. bu problème amé nit bu ñëwé ci kër gi daf ñuy naan yéen de amoo leen ndoxu bët do leen joy. mais cette fois-ci le problème nous a secoué ouais, ça nous a secoué bu dee mhm. dëgg rek ngeen bëgg dégg et ça nous a vraiment touché mi que ko commencé depuis le premier jour moi je peux dire que je suis témoin Mais là tu ci waxu hôpital bi li indi hôpital bi defe arrestation bi la donc dañuy jiitoo ci arrestation bi. justement Fofu, ci arrestation bi lan moo xew parce que gis nañ benn vidéo boo doon yuuxu di xaaju lan moo xew ci arrestation bi. Euh, dama yuux ndax naqar dama yuuxu ndax naqar des fois nga def benn acte ñu ne la waroo ko woon def yow la ñuy tudd yow la ñuy yóbbu yow la ñuy kii waaye nag xol-xol la et am na loo xam ne nekk il faut mu génn si je dis que je suis témoin dama xëy le matin c'était un vendredi mu tombeek jour férié ma dem bureau pare jëli sama yaay yóbbu ko ci benn xaritam bu feebar fi ñu toog di waxtaan ma jékke-jékke ne ko maman man maa ngi dem mu ma doo toog ma ni ko déet bàyyi dama am rendez-vous bi may ñëw ñu ngi pare euh, julli daanaka ci jumaa ji ma yegg si ba ci rond point boulangerie jaune bi ci BRT bi ma gis oto yi ma gis na force de l'ordre ñuy dugg ci BRT bi ci biir sama fitne rëf mu ne lu xew ba bi may jàdd ci koñ bi maa ngi yëndu di xool naan est-ce que barricade waatuñu parce que nag barricade bi dafa am beneen boo xam ne dimension boo xam ne daf ñu fa yóbbu c'était très lourd. dañ ci dellu si bi ñu duggee bi may duggee di gaare dama gaare jàkkaarloog Ousmane.

donc garde yi di ko empêcher empêché ma mer man bi may wax xoma sax kan la waxal bi may wax xam ne le gars teint noir la rouge la sol ma ne ko sëñ bi ma ne ko xanaa amoo leen ay frère xanaa amo len ay sœur pourquoi cet acharnement sur sur cette personne seigne bi lan la len Ousmane def seigne bi yërëm len ñu

mu ne ma waay yéegal ma daal di yéeg bi ma yéegee ma tëdd balaa may tëdd sax yéeg naa ci kaw bi ma yéegee ci kaw yéendu mujj bi garde di ma xool ci kaw di reetaan pourquoi toujours may agir noonu Pape euh, Ousmane la personne bi nga xam ne nekk moom la ñuy gis ci mbedd bi ak la personne bi nga xam ne moo nekk ci biir këram du benn. c'est-à-dire. Ousmane du nitu fitna. Ousmane du nitu Ousmane du te xadi na mako témoigner ñun jigéen ñi dañuy rek Ousmane booy ak mom day génn wala mu nopi nan la wa baxna suñu ay doom sen papa ñun ñoy yar Ousmane du yar donc du coup yépp dama xalaat pourquoi pourquoi ñuy def sur cette personne alors que cette personne ne mérite pas ça gemna yalla de xamna nek sunu borom dafa am te sunu borom bu il t'éprouve mais amna lenn loo dafa metti ma bi euh, il était 15 heures yoy 16 heures sama m'a bi ñëw feug tata lu xew quand il a dit ça xamna nek mom moom li xew mais Ousmane ma taxaw ci fenêtre bi ma sama xol fees torop ma wiiri dem taxaw ci balkon bi bi ma taxawee ci balcon bi di leen xool ñoom ñu ngi sone gendarme yi. ñu ngi sone bëri woon nañu. Euh, ils étaient tous là ils étaient tous là bi may yëndu ñu ngi may gis donc ñoom ñu ngi koy waxante ci seen biir mais man fi ma taxaw maa ngi fa taxaw parce que am na fenn foo xam ne boo boo fa tolloo ci injustice dangeen naan ne nañ ma naa naa dem rek benn yoon. instant boobu foofu laa parce que j'étais à bout parce que mënuma woon gëm comprendre injustice bi man injustice dama ko mës a xeex sama àdduna ba à l'école on m'appelait l'avocate des élèves Pape noonu Ousmane Yek man na dem xolat sama néeg bi di xol na gendarme yaangi fa ma gis len ñu yoré sen euh, bouclier euh, pour noonu pour dajji bunt bi quand ils ont essayé la porte ils n'ont pas réussi ils ont sauté bi ñuy tëb maa ngi taxaw sama néeg toog naa sept jours yoo xam ne nelaw ma lu yëngu damay tiit ma est-ce que du ñoom ñooy ñëw bi ñu forcé bi ñu dañu tepp biñuy ñuy dugg dañu tepp dóor buntu bi fekk ko ci néegu xaj man bi may wàcc fekk na Ousmane ñu ngi koy génnee et ça m'a fait beaucoup mal. Ça m'a fait beaucoup mal. Comme nous n'yop d'ailleurs dans la maison. si que La maison est vide sans Ousmane. La maison est vide sans Ousmane. ñu gàddu yóbbu Nous ñun dit ko gis tribunal d'abord yóbbu ko tribunal. bañ ko yóbbee tribunal nous avons dit gis. Hmm, gis ñun demuñu tonton ji bi dem parce que comme euh, Ousmane moom dafa yar njabotam ci politique politique Sénégal bu ci njabot bi duggee ñu né mom de famille bi daf cee duggu bu ci njabot bi duggul ñu né mom de mi ngi génn di xeexloo doomu jambour yi te njabotam ngi tok lolu motax sax ñun ñuy yéx génn di wax mais tay nak buñ démé ba wax dañu seuss

parce que nous avons donné un permis spécial. Mhm. parce que permis c'était uniquement les mardis et les vendredis. donc nous le temps que nous ñuy lijjanti loolu Ousmane def malaise nous ñu gàdd ko principal. Le principal il a fait un malaise avec hypoglycémie à 0,58. 0,58 hypoglycémie ñëpp xam nañ ko. suukaram moo wàccoon. parce que boobu muy grève de la faim. moo taxoon grève de la faim. waaw. kon kon boo déggee ñuy wax ne euh, us dégg ministre de la justice plus président Ismaïla Madior Fall mu ne musul grève de la faim comment se fait-il que musul grève de la faim def hypoglycémie bañ koy évacuer. Euh, Pape lu ñu mën a tontu ci loolu rek mooy Ousmane Gor la. te gor gu nekk kàddoom la am. te du wax dara luy teggee ko. def naa nekk looloo koy lor sax ci lu bëri Ousmane quand il te dit c'est bleu c'est bleu quand il te dit c'est vert c'est vert. ñun de bi mu fa duggee ba tey ah defe naa du man du xadi de amul kenn koo xam ne nekk jot na ko fay toggal amul kenn koo xam ne nekk jox jot na koo jox mu lekk. Mhm. et tout le monde sait que Ousmane du lekk fenn fu dul këram. Ousmane du lek fenn fudul dul Ousmane du dem restaurant Ousmane boko invité sax pour mu lek problème la les rares fois où muy dem fenn di lekk kooku da ko ne rek woo sa jabar comme ça mu woote bu wootee ma ne ko ayte waa jox nañ la autorisation Ousmane lekul mm-hmm. lekul euh donc xëy tay lolo looloo indi tey fii ñu nekk nga xamné nek nekk. Euh, mais soxna Anna dama bëgg nga wax sénégalais yi wax nañ ko yéen yéen a ngi gis fi nga di hôpital nan la mel comment il se porte parce que mi 20 ci jours ñu ci réanimation dund naa grève de la faim xam naa conséquences yi xam naa bi nan la Ousmane mel fi mu nekk nii la situation est critique Quand je suis sortie là-bas le mardi, quand je l'ai vu, dañ dugg ci oto bi ma ne tonton ji bi Ousmane de Amadou la may nirool mon fils qui a 10 ans xees tuuti ma ne ko waaye yàlla baax na euh, c'est très difficile c'est très difficile et je reviens encore sur le mot gorla li ci gëna metti moy nga nekk ci hôpital té nekkoo aussi jamm c'est très difficile. Madame, ñun keroog bañ fa démé rek pour cette Ousmane on est resté pendant une heure de temps premier jour bi ñu né parce que il faut qu'on attende des instructions ak yooyu noonu donc. Euh, dégg na légui dafa am scanner rek lu ne pour nga Ousmane c'est difficile. oui deuxième fois bi bi ñu ñëwé bay nañ ñu ñu jall ñu ne c'est bon pour vous waaye ba ñu ñëwee ba foofu dañu un scanner ñu nous suñu saak yi ñu contrôler ñu contrôler ñu ñu nangu bi ñu à notre grande surprise euh, Nous bañ ko dugaloon ñu génne ko ko dugal ko beneen hmm. ma ne ko lu xew lu tax ñu la mu ne fi fii baax na ko mais fii la y avait beaucoup plus de commodité nan moo tax ñu indi la fii mu fi fii bi ngay ñew tu étais à 0,58 fan la sa suukar toll mu ne ma avant-hier j'étais à 0,46 c'était le mardi. hypoglycémie mhm. sévère. mu togat mu ma mais la mi ngi yek touti je suis à 0,57. Maniko, ko d'accord c'est bon baax on est parti heure buñ fay guen nak on part avec le cœur très lourd très lourd ba tay lañ fa xeyat delu réanimation ñun ci réseaux sociaux yi lañ ko yëgee. waxuñu leen ko yeen famille. kenn waxuñu ñu ko kenn waxuñu ko ci réseaux sociaux yi lañ ko yégué kon goudi mi ngi réanimation. mi ngi réanimation bima réanimation man dama ko lacc la ma non dañ ma ma pavillon ba pour ñu indi réanimation pour ñu interner ma ma ne ma ba suba le temps que may réfléchir mu d'accord ñu né d'accord c'est bon boobu ñoom dañu taxawon ci tank yóbbu ko euh, réanimation guéné ko pavillon bi mu nekkoon pavillon Teranga. Mhm. chaque minute ñi ci di jaabante ñi ci di jaabante ñi ci di jaabante ñi ci di dem di ñew mujj bi mu ne leen sama bop day metti may leen ma ba suba. demain le matin Inshallah, dina xey ma dem et je vais accepter les soins parce que dafa arrêté won soins yi carrément ñu ne ko d'accord malheureusement à deux heures du matin mu def malaise bi mu defé malaise à deux heures du matin heure bobu lañ ko gaddu yóbbu ko. réanimation yóbbu ko réanimation. ba ni may waxee ki yow lal biñ ko yëkkatee pour yóbbu won ko réanimation fofu lañ ko teudal ba tay donc ñun euh, on n'a même pas les mots Pape en fait cette affaire nous dépasse cette affaire, cette affaire nous dépasse. Et aujourd'hui... Sa vie était elle en danger Parce que moi, j'ai insuffisance rénale. Est-ce que y a un médecin pour vous parler de Papa, on a communiqué avec euh, le médecin, son médecin traitant, toujours, docteur Sissé. Euh, Mais nous sommes euh, à l'hôpital médecin bi la réanimation dafa Euh, Ousmane il avait commencé à faire une insuffisance rénale donc les résultats yi génnee rein yi ñi commencé à corriger. mais l'hypoglycémie bi moo sonal mais actuellement à l'heure que je vous parle il me dit que côté gauche bi il il commence à ne plus le sentir Hmm. nee na ma sama côté gauche bi day melni amul ben mouvement Duma ko duma ko quand il dit ça dama ko dama ko ne bon bay loolu leg léegi léegi mu jall juste pour ne pas wan ko ne que am nañ tit. mais si tit nañu Tit nañu et sa situation est alarmante sa situation est alarmante et sur ce, euh, l'Imeignan, Monsieur le Président de la République Macky je vous lance cet appel solennel. Monsieur le Président, euh, ñaan nañ bayi nga bàyyi Ousmane Sonko mu ñëw ci njabootam ñaan nañ la yàlla nga bàyyi Ousmane mu ñëw ñun ñu faj ko mu nele ñun amuñu ci du tamit pour tous les détenus aujourd'hui on est à 1020 détenus 1020 détenus Cher Bara mi ngi ci côté Ousmane hmm. Hannibal mi ngi ci côté Ousmane Maimouna Jay. Maimouna c'est une maman Yaye là, et tout le monde sait que Maimouna elle est malade depuis des années donc ñi ngi ñaan ñu dimbali ñu ci loolu ñi ngi ñaan ñu dimbali ñu ci loolu et pas bu may ñaan lolo. je vais demander ça à la première dame je m'adresse à elle dama koy ñaan euh, moy nday ji rew yërmande la koy ñaan ku jur yërëm ku jur yërëm hmm. et actuellement li xalé yi di vivre dans les prisons métti les enfants vivent dans les prisons métti et comme on dit il n'y a jamais eu de révolution sans évolution xale yi bëgguñu dara justice la un Sénégal meilleur Sénégal boo xam ne développement lay dem que kese la donc je demande à la première dame en tant que djigène, en tant que maman en tant que yaye, en tant que ndey

qu'on arrête la violence ak parti de mon bokk bu coow ça, sax def des débats d'idées Qui leader li la def leader on veut retrouver le Sénégal d'avant parce que actuellement qu'on le dise ou pas les cœurs sont lourds hmm. qu'on le dise ou pas les gens sont tristes donc nous allons ñaan y'a yàlla na borom bi def mais je veux nous délouer un peu sur 56 jours. Nous avons barriqué. Nous avons dit que nous avons 56 jours. Nous avons dit que nous de 56 jours. Nous barricade. barriqué. Comment est-ce que nous avons wa papa 56 jours ñu barricade ñu ko metti na parce que duñu rek lañ barricader pour bala maa répondre ci question bi sax damay baalu suñu àq suñu waa koñ bi yëpp nag te kër góor gi bi. Mm-hmm. ñëpp sonn nañ. tey ji su ma mënoon caserne la woon caserne la woon fii suñu mënoon bu kër gu nag la ñuy dugg baalu leen àq parce que barricade bi nekkul woon rek ñun rek la ba ci ci ci waa koñ bi kenn mënatul am visiteur kenn mënatul génn sooy génn ñu fuyee sa voiture sa coffre voiture da ngay tijji lépp dañ koy comme man mu jigi man comme sama liggéey sama matériel yi muy liggéey pratiquement sama oto la doon nekk. bi you ba affaire bi flexible et dama sama bi bagage ci parce que ça une heure de temps pratiquement pour ñu tok sa hmm. suñu voisins même chose ngi ñëpp nak te bu bi mais lépp li wër ci rond point bi fépp lañ barricade hmm. ku ci sa wala ku il faut nga joxe justification lay nga jëm am fi courant nañ fi heures du matin. suñu courant sauté ñu xëy la lendemain woo électricien woo waa Sénélec ñu ne ñu kenn du fi dugg. ñu ne kenn du fi dugg. ak chaleur bi ni mu mm-hmm. noonu la ñu nekkee ba le soir mujj gi dafa am ku ñu woo téléphone muy expliquer xale yi bañ defar ko loolu c'est injuste. Mm-hmm. bi ci des suñu wifi am problème ñu woote ñu ne ñu kenn du fi dugg ñëw defar ko. pour nga demoon marché sax c'était tout un problème Son ne kër Sonko laay jëm nag moom beneen affaire la ben ci ñun ñi dëkk ci kër gi xale yi temps yooyu toog nañ ay semaine wu ba sama dom bi doon def terminal dégg na bu ñuy dem dañ leen visiter sax. bu ñuy dem dañ leen doon visiter dem nañ ba mujj gi xale yi tuñ dañu tok ci kër gi xol si cause boobu ñu tek xalé mhm. xol ci si cause boobu ñu tek xalé yi keroog sama dom bi choix bi bu ñuy defi brevet sportif uniforme blouson rek la sol ak chaque somme bu ndaw parce que comme brevet la doon dem mais dafa dem lépp pièce par pièce lañ fouillé ci xalé bi et ça c'est c'est c'est terrifiant mm-hmm. parce que dañuy dañuy traumatiser les enfants dem nañ ba suñu doom bu jigéen bi fii nii waxuma la barricade bi mais avant barricade bi comme tous les jeudis dañ daan convoquer papa mm-hmm. bu jeudi bu mercredi soir bu jotee rek dañuy ñëw ne la maman man kaa mënuma du ma jàngi suba man ko lu tax mënuma policier dañuy ñëw fii nii dañuy encercler mais traumatisme la loolu. traumatisme la si xale un enfant de huit ans sept ans huit ans donc ñun li ñu dundul amul lu ñu dundul amul mais ñi ñu ko teg nag dañoo waroon a toog tamit xool ndax lii bu ñu leen ko tegee dina leen nee xam déet demoon nañ ba début bi tonton ji bu bu génnul jëndal ñun du ñu lekk wala dara duñ ko dem ba nit ñi sax ñu ngi doon wax waa kër Sonko toog nañu ay jour lekkuñu mais lu fi duggoon ci kër gi tonton ji bi mooy génn ci otoom dem jëndi ko ñëw dañ ko daan yónni comme ku yor xale. këriñ sax moo ko daan jënd ji et ça ça man mosuma ko gis un opposant mës na opposé wu fu ne mais mhm. acharnement boobu c'est trop c'est trop c'est trop man toog naa ay jours ana même chose liggéeyu jiwuñ mënuñu ñu liggéey ji parce que ko teree non du même buñ ñu ko terew sax yow mënoo gis say doom mënuñoo génn foo génn fuy bu extraordinaire boo xamante ni gis côté bi dañ ko barricade barricade bi mhm. yow boo taalee sa boo démarré sa oto da gis ñenn ñi jël seen oto def le tour demaat fële non boo yegsee ba foofu man bëggu moon image yooyu sax xale yi di ko gis bëggu moon xale yi di gis image boobu parce que c'est c'est traumatisant hmm. imagineel ay xale nga teg leen loolu seen papa di dund loolu seeni yaay di dund loolu lu ñu dundul amul ci suñu barricade bi lu ñu dundul amul. 56 jours. kenn du ñëw visiter ñu kenn kenn du ñëw visiter ñu non c'est extraordinaire mais nag bon. dañ teg lépp si loxo suñu borom borom dina àtte lépp incha allah. Mhm. duñ ci wax duñ ci polémique dañ ko muñ loo suñu borom te xam ne suñu borom bi lu mu la teg rek am na euh, lu tax mu teg la ko. te dañuy ñaan yàlla nag yaatal suñu dënd ba lépp loo xamante ni teg nañ ko ci ay souffrance Macky ak gouvernement bi li ñu teg ci ay souffrance yàlla nañu yàlla yaatal suñu dënd. ba ñu xalaatoon ngeen xalaatoon ngeen lu mel nii. bu Sonko di engagé en politique ngeen xalaat lu mel nii ne am ci réewum Sénégal. Euh, Pape euh, dama lay jox benn anecdote je me suis mariée en 2002 avec Ousmane ku ma xam xam suñu famille Kébémer ku fa dëkk rek xam nañ ni nit ñu bëgg politique lañ mais man je me suis jamais intéressée à cela. musuma dugg ci urne voté ba en 2017 Ousmane waree dem déposé pour député mosuma woon intéressé donc Ousmane di dugg ci politique bi aussi même chose dama ko ci doon génne à chaque fois ni ko Ousmane lii jaru dara jaru ko fi parce que bon gisoon naa Kébémer ak ndand seen euh, terrain yi ñu am donc dama ni lii dara jaru ko ci àdduna mais bu ma demee Ousmane impliqué wu ci bu baax a baax a baax laa gis loo xamante ne mosuma ko gis sama àdduna mosuma ko gis si mais nag bon xëy mentalité yee changé mais tamit mentalité dina gën a changé waat tamit parce que nag li ñu teg ñi ñu ko teg ñoom xam nañu xel ni ñoom àttanuñ ko. Mm-hmm. mais dañuy ñaan yàlla nag yàlla yaatal suñu dënd bi nag ba liñ ñi teg ñu mun koo muñ. Mm-hmm. mais ku ni mettiwul rek dañ la koo tegul. dëgg la ay ñu dem ci Anna Anna 56 jours yi alors noo ko dundee ak kii parce que mas nañ ci wax benn benn jour dama ñëw fii di leen. tooñ nga ne traumatisme rek la ñu am. traumatisme.

donc man waxuma suñu doom yi ñun kese de waaye xale yi ci koñ bi sax génnatuñu woon football alors que tous les jours il yi foofu lañ doon entre 5 ans 8 ans 9 ans 10 ans foofu lañ doon toog di football entre nous. donc ce que nous avons fait, ay c'est une affaire la affaire la dañu nangu dañu nangu mais c'était lourd Si léeg-léeg bu may génn moomee naan yow bul dem yow ndax day ne tout temps bu ma génnee damay euh, xuloo ak policier. yi bu ñuy génn ñu ñuy fouiller c'est tellement dur c'est tellement difficile. et indécent aussi. Euh, parce que dama ne nekk lii manque de respect mënul weesu lii ba dama ko wax benn agent ma ne ko bu keroog yow mal xiyaamee yàlla nañ daje àjjana ñuy xoolante <laughs> mu ne amiin <laughs> mu duggaat sama oto bi ma demee ba xam ne que il faut que ma accepter ko parce que en fait j'arrivais pas à accepter en fait le fait qu'on soit barricadé hmm. j'arrivais pas à accepter le fait que les enfants même pour partir à l'école problème Le premier jour bi ñuy dem école xalé yi xadimo len leen gàddu yóbbu bi ma demee ba xam ne ne que lii dama ko war a nangu dama ñëw benn jour garé ñu ne ma ay ca parce que da koy def à l'entrée et

parce qu'en fait, un Bob, c'était juste pour détendre un peu l'atmosphère parce qu'ils étaient là. Mais Nyom Bob, ils étaient gênés. Nyom Bob, ils étaient gênés. Parce qu'ils ont des sœurs. Amnan Ils Amnan Ay Djabar. Donc, nous savons que nous devons supporter. C'était très difficile. Très difficile.

ma ne ko santaat si bu wér a wér a wér. mais léegi li Sonko Ousmane dund deux mille vingt et un ci deux mille vingt trois lan moo nekkoon force mentale am yéen la woon wala lan la parce que du ñëpp ko mën a dékku loolu dangeen ko dégg loolu da ko wax fu mu gën a ñaawee waxal nañ ko Ousmane. lan moo nekkoon force mentale am. dafa am euh, wéyu Thione bi ba muy wéy euh, sa femme mm-hmm. ne booy woy nit da koy ne di sa yaay di sa baay. Mm-hmm. waaye man ma wax jikko yi nekk ci yow moo ma gënal. Mm-hmm. kon nag Pape nit ki boo xamee jikkoom doo sonn. moi personnellement bi affaire bi di am dama don le lendemain may liguey avant que ngay di ko li lañ la waxal ko ñu ne ko def Pourquoi j'ai eu ce comportement Parce que je connais Ousmane. Ousmane n'est pas violent. Ousmane ne fait qu'il piquer Ousmane du fekké fuñu ñuy defalee soin nit Ousmane du fekké dara lu metti nit dara du ko fekké dara dara dara dara amul lu muy fekké Ousmane yërmande bi mu am si jigéen Ousmane bi wax ak yow sax tu as l'impression que daf la daf la ragal alors que non donc cette personne ñu ne yow ya def lii wala yow ya def koy nous, nous, nous, sama nous xarit ana Ousmane la nous buñ ma millions ko ne nous kon dit que la même chose ak Ousmane mhm. et quand il est venu je lui ai dit Maniko, ne Ousmane mu nous ne je n'ai pas besoin d'explication mhm j'ai posé deux questions à Ousmane xam nga ko dedet ya ko def dedet mané ko kon nañ dem nga lay faral nga lay faral mm-hmm. on va le faire ensemble et inshallah, sunu borom dinañ ci mbay ndam. sen borom may Pape motax ñu sante yalla biñu suñu borom maye ndam dama sante yalla parce que bi problème bi di am waa ma fille elle avait 5 ans donc da ko doon xol ni ci internet bi. Mm-hmm. et c'était lourd et c'était difficile pour les enfants Ousmane ay doomi mak la am. Mm-hmm. ils comprennent. Mm-hmm. motax bi suñu borom seetalee on a eu ben soulagement bo xam ne que kenn mënu ko xam et toujours nak avec Khady benn jour Ousmane c'était un mec je ko mës je fàtte mu ñaari fan yooyu ba pas ma commencé na suis pas ñun c'est parce qu'on la elle. Mm-hmm. des fois émotion yi pour moi. normal c'est humain. ma réagir comme xale. yuuxu tëb dal. elle elle est toujours posée. bu wax amee sax ana defal ndànk ana defal ndànk c'est normal. Mm-hmm. mais papa, euh, li ñu dund diggante deux mille vingt et un deux mille vingt trois kenn yalla bu ko kenn dundou yalla bëggut kenn dund. mais image boobu ñuy wax ci Ousmane un homme violent boo ko ñu wax na lu tonalité discours un engagement politique mais au fond c'est pas quelqu'un de violent. bon moi j'ai fait 12 ans avec euh, Ousmane. Vous khadid da ci 22 ans. Hein? fait 22 ans donc vous avez fait 22 ans yow yaa ma xam khadid waaw. Ousmane bi may gis gaynde mu taxaw ci meeting di wax ak. Euh, Ousmane bu taxaw si meeting. Mhm. beneen Ousmane la par rapport ak bi nekk ci kër. 22 ans de mariage Ousmane musul rendi xar bu tabaskeem musul rendi xar tabaskeem je me rappelle euh, sama deuxième gosse bi mu juddoo kër gi ñu dëkkoon bi si topp terrain vide la woon. Mhm. ñu toog ba ay timis rek kaña daw si dugg. fekk tëjuma sama buntu ne kaña bi dugg fi dafa génn ndànk néeg bi ni leen duma rey kaña gaayam yi copain yi di ko ko reetaane quoi mënul mhm. gis deret mënu ko koo xamante ni xamul def lu bon franchement xamul xamalu xamaluma ko te jëfewu ko monewu ko aussi mhm. Ousmane nit ku duus la Ousmane booy wax ak moom boo sa mbaat jógee sax nga gis mu noppi pare ci bon entre copain bi nag ku ko ku ko fekk ay copain nag danga naan kii ak Ousmane bi nekk toog ci meeting bi wala kuy toog di def live bokkul day toog mbalak nit ñi kafree ko si liñ ko teg yëpp. loolu laa foofu laa jëm boo ko fekkee ay copain day toog kafree def yooyu sëmbale def ay affaire am mais nag nit nit la Pape. Mhm. nit ki di ko sës foo xamante ni force mu génnee jikkoom te même bu nekkul woon jikkoom il faut mu àbbi jikko aussi tamit nag. Mhm. Ousmane dañ ko sës ci miir bi dafa sës. mais nag kenn dégg ko mu jooy kenn dégg ko mu wax wax bu ñaaw musuma dégg Ousmane fu mu insulté. Mhm. ba doomam yi mu jur musu cee yëkkati baat wax la wax bu ñaaw. ñun kay ñun jigéen ci ñun ñoo ne ci kër gi di wax xale yi di yuuxu ak di gronder affaire yooyu muy jamais xale ku ci def bêtise dalay woo bëgg a ñëw soxtaane ak yow ba pare may la xaalis kooku mooy Ousmane ak njabootam nit ku dal yéen lu mu lu mu lu mu am nag ñoo yaa ko bàyyi ci loxoom. muy ku mu bokkal ak ku mu ñàkk bokkal lu mu am joxe ko en 2005 un jour dañoo toog di waxtaan ñu jot seen fonds commun yi affaire demee noonu man ko Ousmane man dag maa jaaxal fonctionnaire bu mel ni yow te amoo compte bancaire ci yow laa ko gis an sa épargne mu ree ni ma am naa épargne kay man kaa mënuma sama njaboot mënuma lépp lu ma suñu borom di may te bokkuma kaak samay mbokk ak samay am di jàmm yàlla bu ma ko yàlla may fonds commun bu ko jotaan mu gi man la koy jox maa koy dencal chaque jour mu ñëw yëkkati jël dem dem dem dem kon kooku tey jii bu nit ñi toogee naan dafa violent dafa violent daf ma yéem daal bëggul gis dara lu naqari nit nag bëggul gis dara dara dara lu naqari nit fu ko xamante ni fitna am na fi sax da gis mu ñëw nee naa ko sapeur pompier nga xamul lu bon. mais condition yi ñu ko teg. le régime motax aussi tu es obligé de se défendre. déggoo ma ne la dañ ko sës ci meeru bi parce que nit ki chaque chaque jour chaque jour injustice ci kaw injustice privé sa lépp nag amatoo droit ci dëkk bi dafa metti dafa metti avant may jàll aussi il faut me remercier suñu voisins yi ñu dëkkal ci cité kër góor gi bi gis nga boo doxee ba dajé ci kenn ni ko ah soxna si wala monsieur baal ñu àq de gis ngeen de barricade bi ñëpp fitna bi bi ñu teg. ñun la madame ñun ñëpp ñoo ko bokk parce que xam nañ cause bi tax si ñu def ñu ko te cause boobu ñun ñëpp ci ànd kon loolu acte bu ñuy saluer la ci waa cité kër góor gi dëkkandoor yu mel nii jar naa daw fu ne ñëw am dëkkandoor yu mel nii kenn amul seen fay. Mhm. kenn amul seen fay booleeg seen nag dil lay encouragé guddeeg bëccëg madame jàppale leen seen jëkkër jàppale leen seen jëkkër. kon nit ñu baax ñu mën na bu doon bu doon neneen mën nañoo génn fii tey def sitting ni non en a na Sonko tuxu wala mu dem feneen.

koo fi laajte ñu la jàpp nañ ko comme Lido mu ne ma dëkk bi koo laajte mu ne jàpp nañ ko gis que dem nañ ba nit ñi kon loolu def nañ defe nañ ni kon droit la wala devoir la boo xamante ni koo xamante ni yow bokk nga wala jege nga Ousmane Sonko dañ la war a jàpp c'est extraordinaire mm-hmm. yenn acharnement yi dina tax nit révolté wu te bu révolté sénégal Sénégalais leen lañ xam boo révolté woo ñu ne kii na ko nekk nitu fitna mais lan moo la poussé ba nga révolté woo aussi loolu war nañu poser les questions aussi mm-hmm. Ousmane du nekkul nit nekkul nitu fitna ñi ko xam ñëpp xam nañ ne nekkul nit ku fitna nit ku ku dal la ku am gëm la nag ku ku ku dëgër la ci lépp maanaam koo xamante ni dafa bàyyi ak borom boppam ak boromam. dafa bàyyi ak boppam ak boromam xale yi chaque jour bu ñu jullee fajar ba pare day def genre bayaan ak doomam yi. Mhm. su jullee fajar xale yi def seen askar ba pare. mais mu delloo si leen si yàlla wax leen loo tax suñu doom yi d'une part dëgg la affaire yi métti na ci ñoom mais préparé na leen tamit. day toog waxtaan ak leen gis ngeen li may subir mais lii du dara affaire de mag la affaire de politique la lii day jeex yéen jàng leen def leen lii def leen laa chaque jour koo leen seqal fexe leen ba boo leen ko gisee doo leen sëgg ay jikko yoo xamante ni lay def ci ay doomam yoo xamante ni pour préparer leen ci lépp lépp lépp lépp moo xamante ne àdduna la loo leen moomul bu leen ko jël bu leen kenn gis foo leen xamante ni buñ leen fa fekkee xeeb leen xale yi ñu ngi dund loolu ak seen papa te loolu sant yàlla la. Mhm. naa ko sant yàlla la xiirtal leen leen ci diine xiirtal leen leen ci jàng Quran xiirtal leen aussi tamit ci ñu jëf jëf ju rafet envers les autres aussi te loolu c'est très important te doom jikko ci nduru li may tooñee aana chaque jour naa ko dafa xale yi ñoom ñëpp macha allah ils sont généreux lu ñu am partagé lu ñu am partagé Ousmane du ci xaalis tey ji bu soloon dara ngeen ko bëgg naa ko mu daal yëkkati jox la ko.

dafa am xam dafa metti tamit nag. sénégalais xamul ko euh, ko ko luñ koy wax. ko fayu ko dóor mi ngi noonu ko fayu lañ xam bo fayoo ko rek ñu ne dafa violent mi ngi noonu c'est important mi ngi noonu alors ana ma jox le cadeau gi yow tamit nga delu ci wat ci situation médicale Ousmane Sonko ak message bi ngay lancé mu doon message bu fort parce que ñaar fukki fan ku dundul grève de la faim mënoo koo xam ñun dañ ko def defati ko defaat ko ñetti yoon kon xam nañ am aujourd'hui priorité bi mooy ñu xool ñuy bàyyee parce que condition yi ngeen di décrire na lañ sa vie est en danger. Pape la situation elle est alarmante. Euh, buñ si jógul dinañu ëpp loxo le message qu'on lance nañ ñu ko delloo si ñun ñu faj ko ñun on préfère sax nañ ñu indil ñëpp ci buntu kër gi nañu indil l'armée nañu indil les forces de l'ordre GIGN genre nañu indil ñëpp nañ ñu ko tegal mais nañ ñu delloo si Ousmane ci suñu loxo ñun ñu faj ko moo dal suñu xel. parce que Ousmane nekk réanimation nous avons le droit jusqu'au dire mardi le vendredi on est vendredi Pape. Quand on wax Ousmane dina ne sait pas, on ne subhanallah pas. On ne mais on sait pas on demande tout simplement nous. nous ci Ousmane Bir loolu kese la ñuy ñaan on ne demande rien d'autre li détenu yi fa nekk tamit nekk nekk réanimation nekk ci pavillon yi nañ leen génnee dem jox leen seen seen seen seen waajur yi seen parents yi seen jabar yi ñu faj leen mais ñun nañ nous delloo ci Ousmane politique jaruko. Aduna, jaruko. nous on a juste besoin de retrouver Ousmane en vie

te xam naa ne suñu borom dina dina dina saafara lépp incha allah mais daal di lancer waat un appel aussi ci ñi nga xamante ni mooy détenu politique yi ñu libéré leen xale yi sonn nañ soxla nañ seen i waajur njaboot jeet soxla nañ seen i pa seen i seen i papa soxla nañ seen i yaay. surtout hmm. les jigéen ñi aussi dafa metti dafa metti lii ku ne mettiwul da nga kaa dundul wala gisoo ku jege ku la defal démb bi ma gisee image yi nga xamante ni mooy rëbës parents seeni doom yi seeni jëkkër yi dama ni Sénégal est-ce que kenn ngi nekk nekkati na ci biti koo wax ñu ne la mu ngi prison te loolu damaa gisul dara lu ko fi jar bu njëkk nit ñi dañoo ragaloon prison wala boo demande boo ñëwee dafa am bit buñ la nit ñi daan xoolee nii léegi dañoo dem ba te lii dafay favoriser li nga xamante ne mooy banaliser euh, kaso mm-hmm. te loolu état bi war na cee bàyyi xel mm-hmm. war na cee bàyyi xel da ngay gis xale boo xamante ni day dem kaso dañ koy tëj ci manifestation wala dara tëj ko muy bu génnee tey ji la fitam gën a dëkkaraat te yooyu yëpp tëj bu bëri bi moo ko indi daal nañ xoolaat xam ne ñun ñëpp ay waajur lañ ñun ñëpp tamit. Mhm. ay père de famille ay mère de famille. ay xale yu ndaw ñoo nekk ci yëf yi nañ arrêté yi ñuy def bu ñu bëggee suñu Sénégal jëm kanam mën nañoo jël yeneen stratégie yoo xamante ne bokkul lii. ni ngi naan xale yi dañoo violent léegi dañoo def lii mais nit nit la koo sës ci bi. mu gis boppam. Mhm. xale yi liggéeyuñu xale yi fajuwuñu xale yi jàngatuñu loolu yëpp nekk fi xoolal tey ji ñaata xale ñooy dee ci ci géej gi. géej gi ñaata xale ñooy dem ci géej gi désespoir moo indi loolu bëgg a toog teral seeni waajur moo indi loolu kon nañ toogaat ñu waxtaanaat ci seen biir xool li nga xamante ni mooy jariñ ñëpp suqali Sénégal te violence du am dara du am defe naa loolu mooy dëgg. Mhm. mais leneen luñ dul wax lu dul loolu franchement ñi ngi nax nit ñi. Senegal Sénégal stabilité la soxla depuis sangor ba tay yenn li fi am musu fe am kon buñu bëggé ñu tok histoire du Sénégal di netal suñu doom muy rafet nañ sétat suñu bop ci lépp hmm merci beaucoup. jërëjëf euh, ma ngi lay di sante di leen gërëm bu baaxa baax euh, soxna Khady Kébé soxna ana jamanka euh, ngeen nek ay soxna yu. Ousmane Sonko mu nekk ci ñaar fukki fan ak lu teg grève de la faim jamono yi may wax ak yeen mi ngi service de réanimation réew mi nak ñëpp jaxlé deug mu té dogal bi ci kenn nit rek la mëna joggé muy président Macky Sall wara euh déllu ci wat xélam fexé ba li du jur loraange ak coow loo xam ne kenn xamul nuñ koy fayee ndax nag bakkan foor na trop ñu ñaan yàlla ñëpp ñi nekk ci xat-xat yàlla génn leen ci waaye nag yàlla mën na koo def waaye day am sababu nit kon képp ku yor kàddu ci réew mi tamit war nga ko yëkkati képp ku mën a wax ak président Macky Sall man nga waxtaan ak mom ngir mu xol na lañuy fexé ba libérer détenu politique yépp libérer Ousmane Sonko mu ñëw ci ay njabotam ci anam bu mu koy défé nak mom moko xam ndax miru état la mu ay njabotam nu mën ko fat fajj bi wér ngir euh, mu mëna jogat taxaw doxiwat ay soxlaam li mooy waxtaan wi nga xam ne bëggoon na leen ko dégtal ay so ak euh, soxna yu Ousmane Sonko euh, di soxna Khady Kébé ak Anna Diamanka di leen dig daje ci beneen waxtaan incha allah jërë ngeen jëf.